dimanche ba la ñu génn la xale bu jigéen bi ñuy woowee maman ay Ndong réer ci diwaanu Bargny ay waajuram di ko wër fu nekk ba sax waajuram bu góor bii di wuyoo ci turu Famara Ndong defoon benn post ci réseaux sociaux yi ngir yëgle doomam jii di maman ay Ndong réer gi mu réer depuis dimanche ay booru 20 kenn tegu ko bët moom maman ay Ndong tey jii nag la ñu ko gis waaye dañoo fekk mu faatu ba tax na sax ñu njort na dañoo jël bakkanam moom maman Aïcha Ndong nag ci fàttali xale bu ndaw ndax mu ngi def classe quatrième ci sem bu Bargny dem gi nag jaaxaloon ay mbokkam rawatina ñi nga xam xamante ni miin nañ ko lool ñetti fan ci tey jii gannaaw réeram ji nag mujjee nañu ko gis waaye dañoo fekk mu faatu bu fekkee ne ñenn ñi jàpp nañ ne dañoo jël bakkanam police moom dugal na ci loxoom dèjà ndaxte jàpp na kenn ci copinam yi en attendant nag enquête bi di gën a leer ci génnug àdduna xale bii di maman Aïcha Ndong ci diwaanu Bargny ba tey ci fàttali bu di sukkandiku ci poste bi nga xamante ni way juróom bu góor bii di Famara Ndong def na ko ci réseaux sociaux yi mi ngi doon xam le ne doomam dafa réer depuis dimanche ci ay 20 heures léegi ñoo ngi koy wër gisuñu ko tey ci talaata ji nag lañ mujjee gis maman Aïcha Ndong moomu waaye dañoo ñëw fekk ko mu daal di ñàkk bakkanam jamono ji nag kenn rek ci copinam yi lañ tegagum loxo ci faatug maman Aïcha Ndong bi en attendant nag enquête bi di continuer comme ça ñu mën a xam lan moo jël bakkanu maman Aïcha Ndong mii ak lu ci mënti xew Dakar bés moom dana ci ñëwaat ci na mu a yaatoo